GIE takku liggéey da ngéeña euh, ñu ngi toll ci vingt sept personnes ñun ñu ngi yëngu ci maraîchage di yëngu ci transformation di yëngu aussi ci élevage volaille ñun na suñuy jafe-jafe moom dama koy tënk ñu man li ma buggoon mooy ñu dimbale ñu ci formation professionnelle ñu mun a taxaw ci transformation bi dimbale ñu ci conservation ñu mun a conserver ginaar yi nga xam ne dañ koy yar te amuñ fuñ ko jaayee ñu mun koo conserver ba muy jeex dimbaliñ ci forage boo xam ne moom lañ mun a jàppandu pour suñu maraîchage mun a taxaw dimbaliñu si aussi ci formation gestion pour suñu liggéey gën yomb. suñu xel de dal na vraiment ba ma commencé di liggéey ba tey mosuñoo am occasion bi ñu am nii tey mosta am ñu ngi koy door a am. tey te aussi suñu xel dal na ñu ngi yaakaar daal ñu ngi yaakaar tàllal leen loxo bugg ñu gunge ñu jàppale li ko waral mooy manque ndox mi rek taw yi comme bëriwutoon teen yi dañuy dem léegi ñun biñ commencé jëmbat bay arrosé ba mu dem ba si diggi saison bi ci la teen yi jeex moto pompe yi mënatuñoo jot ndox yi léegi ci lañu suñu mat bagage yëpp dee amatuñu. lu ñu arrosé ñu mujj bàyyi saison bi mu jàll noonu. man am naa fierté bu ngand tey parce que mosuma gis ministère bu wàcc ci suñ commune man ma fekke ko tey am nañu fu ñu exprimer woo luy suñu métit luy suñuy tiis lii suñu jafe-jafe suñu jafe-jafe moo nekk corona bi it yàq na lu bëri ci suñ liggéey parce que temps boobu kenn dematul kenn dikkatul te fekk nañu dugal ay ginaar. jënd suñuy marchandise kenn dematul ñu tëj ñu yëpp tëju loolu mun nañ ne suñu xaalis boobu dafa yàqu dañu war a recommencer à zéro te kontaan naa si ñoom parce que ñoom association mooy doole parce que ni ñuy def kenn kenn yi dawal boppam amul njëriñ mais buñ ñu associé woon ñu ba ñu nekk en groupe bokk koñ kenn du ragalati moromam ndax dañuy miinante ndax association bi donc mun nañu gërëm le président Macky li muy def pour le développement de du Sénégal parce que jigéen ñi bëgg nañoo liggéey am nañu bugg a liggéey am vision bi mais xamuñ nu ñuy jaar léegi li ma leen di ma tënk yenn yi foog ñu may ñu matériel yoo xam ne boo amuloo jaayit am foo ko conserver won ñu yoon bi parce que def nañ formation eau de javel formation savon def jus def yëpp mais amul suivi on nous donné que des attestations loolu soriwul dañu bëgg nag su ñu jàngee ba am ñu won ñu diplôme bi defal ñu ko en diplôme boo xam ne nit dina soxla beneen dëkk ñëw nañu defal leen ñu jus defal leen ñu saabu mbaa defal leen ñu eau de javel ñu defal leen mun a jaay si dëkk ak dëkk ñoom it ñu gisee leneen ñun ñu andi càkkri beeg araw yi fonde yeeg yooyu yëpp ak cere ji lépp mun nañ koo def mais ça manque les moyens et les matériels. li ñu jàng bu ñu ko buggee appliquer foog ñu former ñu gunge ñu parce que nit ki nga jox xaalis te xamul nu mu koy fructifier bu yàggee mooy andi gestion yi diig loo jàngul doo doon sëriñam bu ñu encadré woon ñu ba ñu xam li ñuy def foog naa suñ fi ñëwaatee dinañ kontaan. li wax jooju nga wax jigéen ña yoreeti kër gi jigéen ñay fay courant ñooy yóbbu xale yi ñu jàngi ñooy def yëpp. jëkkër léegi la plupart des hommes kii la si jigéen ñi luy doom wax danaan yaay dàll yaay nangam loolu lu dëggu la su jàppalee jigéen ñi le Sénégal ay en avance waaw tey ji dañu ñëwoon ci kàddu ak ci tànku déplacement wu madame le ministre euh, Zahra Iyane Thiam Diop mi nga xamante ne moo jiite ministre de la microfinance et de l' sociale solidaire pour ñëw euh, daje ak jigéen ñi nga xamante ne ñi ngi nekk ci commune Nguéniène tey nag njànd lañ ko tàmbalee ñëw fii waxtaan ak ñoom ba euh, GIE yi association de femmes yi ñëw waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ne moom la ministère bi di liggéey fii ci Sénégal te li muy liggéey madame le ministre nii pour ñu wax ko muy moom it ndawalu président de la république monsieur Macky Sall. waaw gannaaw ba ñu waxtaanee ak ñoom ci euh, li nga xamante ni moom mooy euh, promotion économie sociale et solidaire muy benn modèle entrepreneurial boo xam ne dafa bees te ñu jàpp ni modèle la boo xamante ni war na war a mën a développer Sénégal à travers euh, femmes yi ak ndaw yi bi ñu waxtaanee ak ñoom. ci loolu euh, xamal leen li nga xamante ni moom moo moom moo am ci au niveau du ministère muy la loi d'orientation sociale de l'économie sociale et solidaire bi nga xamante ni assemblée voté nañ ko ci ajuma bi ñu weesu muy loo xamante ni innovation bu rëy la et de taille loo xamante ni dafay wone ni euh, acteurs économie sociale et solidaire yi mën nañ leen euh, regrouper ci benn cadre boo xamante ni cadre Euh, juridique la institutionnel boo xamante ni dafa ànd ak ay bagages yoo xam ni dafay am solo ñu vulgariser ko ñoom ñëpp ñu xam ko te tey jii def nañu ak ñoom loolu xamal nañ leen lan mooy texte boobu euh, cadre boobu lan moo ci nekk waaye xamal neen lañ leen tamit ni beneen loo xam ni am na ci biir euh, texte yooyu muy seen label plateforme seen label ci la bokk donc mu nekk euh, loo xamante ni ñoom ñëpp mën nañ ci dugg mu am ay euh, euh, maanaam ay proposition mu am ay kii yu mucc ayib yoo xamante ni ñu ngi leen di ko proposé loolu la ñu waxtaanee ñoom ñëpp waxtaan nañu ak ñoom loolu ñoom ñëpp nag ci seeni soxla ñu wax ñu ñoom lan la ñu bëgg déglu nañ leen bu soobee yàlla madame la ministre mi ngi préparé ñëwam fii alxames te dana ñëw wax ak ñoom jàkkaarlook ñoom ca seen bëgg-bëgg te bëgg-bëgg yi bañ ko xoolee weesuwul encadrement weesuwul accompagnement weesuwul formalisation parce que gis nañ ni loolu dafa fi xaw a sooxe tuuti waaye weesuwul aussi bu fekkee ne mën nañ leen jàppale à travers ay financement wala ay subvention bu fekkee ne mën nañ ko def ñu def ci te am nañ ci yaakaar te madame le ministre bu soobee yàlla alxames bu ñëwee jàkkaarloog jigéenu commune ñeen ci seeni soxla pour développer le Sénégal à travers vision bi nga xam ne moom la son excellence am pour un Sénégal émergent